ki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax muy góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba mënoo dara si néeg dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba mënoo si dara yokkum awra kenn sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko si diwee say ans day génn say fes génn say patokornel génn boo solee baa wala rob sa form nu fàng karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga amee tànk yu miti di la sonal lool ngay góor ñu takk la xalaa boo seetee seex da koy dind si une minute yow mi nga xam ni dangaa amee prostate bëñ buy metti seex dalay tàggaleeg moom jokkal ak moom si numéro téléphone yii muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak moom moo xam nga bëgg ku la jaay produit bi wala nga bëgg a faju fajum cosaan boo seetee seex mu la ak lépp luy sa jàngoro seex a ngi noonu dab yi tey askan wi rek mooy li koy Man may nani tesi kondi Man luma amu regla nyodi Pour mëna en si Waral me jaay sama ngor bi Nandite goro yato Nandite amo yoro Nandite goro yato Nandite amo yoro Man la boy serer dëkk ba laa jugee xeebuma benn liggéey lu ma am jox njaboot ji fee yaakaaruma si weer bu dee pour mën a am salaire sama sareet moom lay xëyee pour mën a am wecceet doyal naa gaal seen fiis ne kaw laay gis même bu may jël ci gaal yi dee pour mën a dund bel bi dund bi daa metti waral may jël ay risque foog ma dugg kaw dellu si dose fi naa nitee amoo yoroo doom du jooy yaa ko nag sa doom du jooy sa doom du jooy kese kese ale eh. sa doom du jooy ça va. ça va booy. ça va naka mu. ça va naaj. non mënu ma joxe loxo. loo soxla nga ni. ah ko ah. ñuuleel. waaw. non non non man du ma jaay ñuuleel de. doo jaay ñuuleel. déedéet. boros adan. boros adan. fii kese kese xale affaire koom kese kese xale. so doom du jooy mbiibu halee koom pour karaw aka boros ah, aka boros quoi boros waaw bo nante booy est-ce que xam nga dara booy waaw booy yow da ngaa ñàkk jom quoi booy fii ndax lan nga wax loolu ndax ndax ndax yow ah magum jëm silibu xale eh, bun xale loolu mooy lan kan moo jaay silibu xale yow yow mi yaa silibu xale yow yow da maa bugg tooñ wala da nga maa miin wala lan moo tax nga bugg xam ngeen xam naa leen yéen booy Dakar yi. Eh, amul booy eh, Dakar amul dara eh, naa leen de. booy booy foo naa leen. li nga bëgg mooy tooñ ma fii yëngal sama xol yu xeex sama bagage yi yàqu. man amataa ma ñàkk bagage yi ak jaay sa ruu laa yemale si moom sa ruu yow yow xalal xam nga gis ku gis sa kanam bi ha ah? xama yow tapet nga bët bët naa fekk nga yore xam nga la mën di xamal yow dëmu nga yow dem nga ko yakal ko wax dem yow xoolal ko wax dem yow demal sa yoon eh, eh, ma boy fils xam wax la ka ma tagal ben di diir xam nga demal sa yoon dewma demal sa yoon ba dewma boy yara dewma la la leen ma door doyel na gal sen fils ne len kaw lay gis même bu may jël ci gal yi dé pour mën dundu bel bi dundu bi da metti waral may jël ay risque foo ma dugg kaw dellu si dosé naa de ma xamee ah, <laughs> rek naka yi tey ñu ngi sant bu baax ci yoon bi ah taxu koo sonn kay ah ci dëkk gis nga ko moom waaw ñii tàng na de moom dèjà dëgg la kay naka xale yi ñi ngi sant bu baax naka jigéen ñi ngi sant bu baax jërëjëf waay alhamdulilah sant bu baax yoon bi kay tuuti tuuti rek moo ko xaw a métti ndax gis nga dañoo jël départ fële si penc ba penc jaxaaw waaw mbi boo ñëwee ba kër buur siin kër ah, mhm. mhm. wow wow wow wow wow waaw waaw waaw foofu lañ jëlee départ dégg nga ndaa koy ba ñëwee ba romb Fatick wow wow si oto bi am na ku doon voyage waaw waaw ñu arrêté policier bi xool ne ñaata nit ñoo ni wow oto bi ñu ne am nañ si trente wow passagers hmm. muy fanweeri nit ak juróom ak benn pol waaw ya, pol boobu nag ndeke moo yoroon yamba si oto waaw waaw yamba affaire bi kay daa métti. ñu ah, arrêté ñu dégg nga ay ay ay yu jigéen arrêté ñu nag nañu ata futeeku leen ñu simmeeku. Eh, waa Diouf noo def booba. ah nu may def dégg ñu xool mag suma rasta yi ku dul tux cigarette lu muy doyee yamba. ah yow moom doo tux waa ji ne moomul saag bi. ah policier bu jigéen bi ne wacc leen ñu wàcc ñu ne ata allumé. la ñu def nii suñuy loxo. yéen sonnu ngeen di. waay xale bu réew boo xam ne jàpp suma tubay bi dugal loxoom. dégg nga dugal lu xoom su ma di ma du moloñ moloñee di ma yor fu ne su ma xool baa ngi bëgg a dagg ndax joomu séeréer. fu mu la doon mogoñ ah, du foog dama denc yamba si suma kanam gi dugal lu xoom suma biir caaya bi. ay mel rek kuy kuy kuy wiise rajo naan nii dégg nga suma xol di waaj a génn. ah yow sa xol bi dagg na. ah dina ko woon a pes. door lan la yow. waaye ah sel nga dama lay waxal dama lay xelal xam nga lan nga war a def. ah war a ñëw nga teg lii nga topp ma ma ma digal la lan ngay def da ngay ñëw booy fii xoolal fii boo fi nekkee doo am dara xam nga lan ngay def da ngay ñëw ñu dem ah ñu yëg ci gaal bi ñu dem Europe wala ñu dem Amérique walla ñu dem Brésil comprendre nga waaw après boo demee foofu ah di mën a di nga mën a di nga mën a di nga mën a di mën a tere sa waajur waaye lii ni yëfu góor jigéen la te yow da ngaa njool boo njoolee sa doxin day mel ne jigéen. comprendre nga bëgg nekk sax góor jigéen yow. non dama lay wax rek booy dama lay xelaw yow sax yaa yaa nekk góor jigéen yow. waaye góor jigéen lépp ci faay la yow yaa waxoo man dama man gis nga lii lii moo ma ay dem ay gaal ma xamal la ko nag. ma topp fii moo solo booy ngay topp lii nii góor jigéen yi. man booy damay saaga sa ndey waay. Ah, saaga sama ndey boobaa saaga sa nijaay sa umbaañ sa waajur yëpp. ñu dee sax dinaa saaga yoo xamoo booy damay dof dof lu adam daf lu waaye yow yow xam nga xam na la si koñ bi yow da nga boy mën nga toñ de boy. ma tay boy yow ma la ëpp doole ma la mën da nga ñëw ma doole pare nangu sa gal muy wa wa yow um haram booy kaay ale kase kase ale kase kase ale boy ka ale <laughs> lu ma gëna a naqari mooy alkaati bu bi wa melni kuy jënd basante lan ñoxor bu yëkkatee ñoxor ba mu ne nii mu bàyyi ñoxor jàpp ñaari pono yi peer yi dégg dem ba yëf yi commencé vivre mu jékki-jékki na ma fàttan <laughs> waa léegi noo def ak moom ah, nu may def ak moom alkaatu yu góor yaa ngi taxaw ñu yori fetal pol bi ne mukk ne moomul saako yàmbaa bi lan te moo ko te moo <laughs> hmm? ba muy bi gis ah mais wax ni ko pol ko ah, wala ah, ah taxaw alkaati bu jigéen bi booba waroon tax na nga leen pël bii moo ko moom kooku lu ma metti mooy jàpp bi mu jàpp ñoxor ba ñoxor dem bay fii vivre mu ne ko yëlbet bay lan kooku bu ñu weetoon dina xam ne ba si góor a koy boy waaw te mënoo ko woon ne ko bàyyi ma ah loo koy wax ñu ngi yor seen i wala luñ doon seet yamba bii lañ doon seet ku ko ah yamba ba <laughs> ñu yaakaar si suufu ñoxor si suufu pone yi foofu mën naa fee denc yamba ak xam nga rasta yi dañ lay gis rek. Ah, foog la toog waaw waaw waaw ah? Ah, waaye nag kaay ma wax ñu ngi juum de. ñu ngi juum ñu ngi juum de. ñu ngi juum de ku ku ñu gis rek mu def ay rasta rek. waaw ñu yaakaar njool lool ñu ngi juum nag. eh tubaab kaatee l'apparence est souvent trompeuse. Eh, eh, waa ju foo xamee loolu. waaw eh, mii léegi assumé nga de. séeréer yee dakk jàng si réew ñoo ñaka agrégé en grammaire bi. dégg lii bi. ma wàcc ci dëkk bi di laajte benn baraag mhm. ku ma dajal na ko yow eh, ku baax bay faal ana baraag bi ndeke baraag bi dañ na yàgg <laughs> yo loolu dañ bu yàgg ah. xanaa gisoo koñ bi léegi ni ah, mel na soppi ah Diouf nag dangaa waroon a laajte léegi kay taaxum taaxum kaw ngeen ko waroon tudd yow daal xam nga lu ma bëgg xam naa ni sonn nga toogal noppul ma dem ca waañ ba mm. yëggale bu ko mm. defee ñu daal di añ léegi sama nijaay d'accord toogal noppul yow moom li nga def ci yoon wi <laughs> ne li nga def yow xam nga noppul sama yumpaañ koy fam la nak gis nga gis nga deeti kambuda kete séeréer laya kambuda muda moy ku wang sama yumpaañ de wang bi ye ya, che bis ñak suba ne che dakar maluma amul rek lay ñonti pour mën am si yenn geel waral may jaay sama ngor bi man may nandi te si koñ bi man lu ma amul rek la ñooti pour waaye yow yero. ça va. ah yow de. yaa nekk nii quoi. maa ngi jaar naa seen kër ñu ne da nga génn quoi. waaw dama génnoon nag génn bu ndaw rek. ça va. war yaa ngi tooy. <laughs> wóor na yàlla yaa ngi tooy de. <laughs> kon yaa ngi may seet nii. <laughs> gis naa la. yaa ngi bu baax sax. Oh. man mënu ma gëm ba léegi nii dama lay gérer. Ah. yàlla xam na ko mënu ma ko gëm parce que xam yow da nga tooy quoi. xanaa gisoo sa bopp. man du ma génn ak coomo man mii rek. ah sa suul daf may taal. xamul dara yaa dégg eh, nga ma gisee nii. Ah. ni mu nekkee góor sax xamuloo. looy wax nii ay ngóob ay ngóobaat ay ngóobaat ay ngóob ngóobaat ngóobaat dégguma la de jox ma no waxa ma jox la no wër na yàlla ay ngóob ay ngóobaat mba am na desal <laughs> waaw <laughs> eh, ngóob ay ñetti yoon ñetti yoon ngay ngóob waay yow man man loolooy dundal sama xol. xam nga njool laa quoi. njool laa quoi. waaw gàttuma te looy xool rek boo xoolee ca baaraam bu mag bi ci waaw gis nga ci nga xam ne ma nga ca kaw. ma nga ca kawam sama waaj. lay wallaay yow bokkoo ci. jee <laughs> ah. laa jógee ma wàcc ñëw tëdd nelaw après suba man sama su ma sunu patron bi. su ma neexee sax du ma xëy. wax nga dëgg yow su ma neexee sax damay toog. Mhm. du ma xëy te du si mujj dara ko waaw parce dañoo xam sa compétence. waaw sama coquettage la ñu xam. yow fan nga fan mooy seen bureau fii. waxuma la ko. déedéet. Lamadi bi. luy Lamadi bi sax. Lamadi si wiiraasi Lamadi bi. ah Almadi. voilà. ah d' accord <laughs> d' accord virage ah, foofu waaw si Almadies bi foofu noonu ci virage yi quoi. man xamoon naa ni doo coomo yow xam nga ni doo liggéey ci Maliya bi man naka jekk ma xool la xam ne doo liggéey ci Maliya bi. soxlawu ma ko sax liggéey boolier ah. ah liggéey ñàkk fayda la quoi. ku ñàkk fayda mooy liggéey si boolier yi quoi. man bureau dem. Mhm. def li ma def. Mhm. wàññeeku su ma neexee. ma xëy mhm. su ma neexee du ma xëy. yow doo génn <laughs> xam nga ne boo gisee ma téye la. Eh. ma génn ak como <laughs> doo como macha allah. Eh, koñ bi nag am nañu problème de. ah lu xew. Hmm, am nañu ngaaka de. ngaaka benn séeréer ñëw na de. waaye yow mooy borom téere yu bari yi ma gis. ngaaka la seer la woo seer la xamul quoi boo ko xoolee rek da ngay xam kii. si dexu dexu séeréer yi la jóge quoi xam nga bu yewu bariwul. waaw loolu de am yi séeréer bu doole dañuy dañuy dañuy. dañuy muus quoi waaw moom téere bi moom xanaa day dox ci mbedd yi di for ay téere takk. dafa foog ni du de yow war naa amoo séeréer séeréer yi sangu bariwul de. <laughs> ay sangu garab la ñu waaye sangu civilisé comme man ni ma civilisé nii nii ni nii nii. waaw gaam nag. non su ma bokkee moom gaam damay xaru. laa yi laa kii nga xam ne gars yi kii amul sa bu la la dëkk bi dox. dina am problème nag. am na ko parce que bu dëkkee naan te bu mel ni yaw ah gis nga yow nga li ne ci yow. xam nga ni yow man bëggeewu ma la ah xoolal xoolal bi xoolal sëriñ bi non ma rey barke rasulullah bu Man may nani tesi konbi Maluma amu regla nyodi Kurmuna amsi si yene geli me jai samang gorbi Nandi te koro yato Nandi te amo yoro Nandi te koro yato Nandi te amo yoro